waaw place de France de man daanaka li ma ci mun a expliquer daanaka xam naa warul bëri loolu parce que man dama juddu fekk fi place de France waaw place de France damaa judd fekk ko fi waaw ñu ko tuddee di ko woowee place de France mais xaw ma directement histoire fu mu jugee waaw mais après après place de France boobu nag ñu tuddee ko waat place de de promenade thiessoise waaw mooy les sentiers de Idrissa Seck waaw loolu laa xam ci place de France. place de France moom <laughs> moo bi ñu koy wax nag waaw yàggul nag waaye li ci gën a yàgg daal mooy fii moom moo doon bërëb boo xam ni bërëbu cees la ndax fii structure yi ba mu fi li fi li fi bees ya yàggul waaye amoon na école bu nekkoon fii bu tuddoon Germain la gof léegi toxal nañ ko. bon amoon fii nii Michelande bi léegi avant loolu amoon na benn jet d'eau bi fi nekkoon cour pénal bi mi ngi fi woon fii nii ñu taxawee nii Germain école Germain Le Goff man fi laa jàngee fi laa defee sama cycle élémentaire mais fi lañ doon defee ñun éducation civique amoon na aussi ay terrain bu yaatu bu suuf la woon ñu ci doon football terrain tuddee woon këriñ yooyu mais yàgg na woon après nag réfection chantier Thiès ci la ñëw nag ñu bëggoon fi def place eh, eh, eh, kii 4444 mais finalement ñu mujjee ko tuddee place de France bon li ma ci gën a marqué nag euh, certes mooy que passé ak fête yi yi xam ne jeune Thiès yi ak euh, mouvement Thiès yëpp fii lañ am pour mun si di fi di waaw di divulguer seen sentiment aussi di fi mën di euh, fi mën euh, waaw di satisfaire seen seen satisfaction quoi bon moyen de distraction la fi bon lu baax la ci dëkk bi nag franchement parce que xale yaa ngi nii boo ko seetloo ñu ngi nii di dawal seen velo te espace bi vraiment amuñu ko feneen fu dul fii ci Thiès. daanaka Thiès moom wàllu culture. ci wàllu théâtral yàgg na fi waaw loolu moom yàgg na fi ba ba tey jii ma lay wax nii loolu moom daanaka mu ngi gën a avancé waaw waaw les groupes jànkeen bëri na ci ay comédiens ay groupe ay groupe théâtral ñu ngi fi waaw vraiment loolu ci suñu culture la bokk daal théâtre di def liggéey bu am solo daanaka ci réew mi àdduna bi yëpp di ci teg seen i bët di ko déglu di ko seetaan waaw te ñoom seen théâtre wax dëgg yàlla théâtre u Thiès ku ci nekk mu ngi ciy jëriñu parce que ñoom dañoo théâtre pour yeete théâtre ñu pour yàq askan wi wala yàq njabootu Sénégal ak yooyu daal dañoo théâtre pour yeete ñun ñi seen théâtre boo koy suivre rek dañ ci njàngat lu bëri tamit dañ ci jëlee xam-xam. waaw <laughs> di leen sant nag ba pare waaw ndax ñoom seen prestation yaatu na rafet na parce que dañuy jàngale. il il véhicule un message euh, te population bi yëpp d'accord na ñi ngi ciy jot waaw ñi ngi bégalee aussi ku amoon mer mer ak sa mer toog sa néeg mer wala nga toog sa ruq mer boo leen seetaanee kontaan franchement dañ leen du ñu mën lu dul di leen applaudir di leen ut di leen ñaanal aussi ñu utal leen benn salle de spectacle amoon na fi cinéma amitié mais léegi amatuñ ko Thiès bu ñu sañoon nag ñu am autorité yi jàppale ñu ñu am benn salle spectacle ñoom ñu leen di mën a dem di leen seetaani chaque dimanche ou chaque programme di chaque samedi ou pas mais cinéma moom amatul Thiès loolu lu ñuy jooy la wax dëgg yàlla.